bàyyi ko ci Serigne Mountakha ci ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xamné mo fi jëm Serigne Touba tey ci kaw suuf ñu ñaan ñu am fi loolu te ànd ak ñun am mott li mboolem naal yi nga xamné am na ko ci liggéey Serigne Touba te lepp di toolu lislaam di siyaré bu baax nak suñu kilifa ku tey gi teew te ñu nekkal fi mboolem jëmale ko Sëriñ Tuubaa gépp di bàyyi sa di xam ne ak Cheikh Mouhamadou Mourtada nga xam ne li ngeen seere ci moom yaakaar naa li nga xam ci moom moo ko ëpp wa shahida shahidun min ahliha loolu ngeen seer rek ni mu nuroo Cheikh Mouhamadou Mourtada ci jëmm ni la ko nuroo ci jikko kon li li ngeen seer ci moom rek li ne ci moom ko li ñuy ñaan kay mooy yéen ñi dëkk moom yàlla ngeen xam mooy kan ba man koo jëriñoo ndax suñu kilifa bu baax rek Cheikh Amadou ci moom nag ku ko topp ci ak waaye bu baaxam doo jëriñu ci jotum noonu ko sëñ bi waxee rek na ku jariñu euh, ci kim jamonoonteel ci topp bi faj li nga bi tibaax yi loolu néew na ndax doomu aadama yàlla ko bind kon ñu ngi nuyu bokk tey bii di nuyu ñi nga xam ne ñooy ñi nga ne ñooy bi te teew te yéen ñëpp ngeen seere seen taxawaay ci bis bi loolu doon sëkk ndax lu fi waay jëfal Sëriñ Tuubaa tax ngay jëf ko Sëriñ Tuubaa nag ku ko jëf daa waxoon ne ñi fi ñëw ñëpp yaa rekk leen fendi ñenn ñi àdduna leen fendi ñu jël àllaaxira leen fendi ñi fi àdduna indi yàlla suñu moom jox na ba ma ba ma doon ko sëkk te soxlu ci dara kon ku ko fi sàkku fi ku ko sàkku fi da ko ñi nga xam ne nag alaaxira leen fi indi lañ fa bëgg mënal naa leen naa leen ko ana ki ma jaaxal daal mooy ki nga xam ne mooy li ma yàlla def néew waxaat na feneen ne anna man waasalani laa li xararin dunyawi fa innahu yakunu min al muqarrabin képp koo xam ne maa topp te ëllëg tax da nga bokk ci ñi yàlla gën a jege la suñu borom أن مواس بين الدنيا فقط إن الله يكرمه ما دام حيا كون كم بيرفج كما قال في قد أدنى سنة دون كون ديال مبولا كون جاي لي ركزين كون نيجي نيجي بوك تالي يب دانا كده نور روح يب نيجي كوه باتحنا سوني يسابي بوكو لو كاتلين دافيو يوم بوكو lii sëñ Modou Mbacké si wax mënu ci sax am inkaar la mënu ndax képp yaakaar sëñ Tuubaa yaa seet ba mu doole na ko sëñ Mbacké bu soxla nga ne ko jëm na naa sama bopp àdduna ba la xel kon loolu sëñ bi xalaat ko sëñ bi xalaatu mukk di santaan nit ñi di ko ñàkk rek mm-hmm. xanaa ñàkk xam ne bëggu sëñ bi loolu amul xalaat ndax yoon bu du dox noonu ku ne ak sa docteur yoon boobu nag ni muy doxee mooy samaan wa taatan lépp lu ñu la digal nga def ko tolloo ci xalaat loolu siy tubaab sax ndax bi mu wax sarti murid sare doo ko caa boole wa ma wa ma huwa salamu li ixtiyaari li xusni zannihi bi daal kaay mooy doo tànnal sa bopp ndax bu fekkente ne bu sëriñ bi tànnee nga am ci xalaat jàpp nga ne sag tànn moo gën a gën tànn sëriñ bi loolu sëriñ bi da ko dàq te alxuraan wax na ko ci diggante rasulullahi ak saxaaba yi ak jul bi wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amrihim wa talkul ictiraari mutlaqan wa rabbatin alayhi fi ma qatawu moo tax loolu moom munu ci am ndax ku ko def yaa génn sa bopp te ku génn sa bopp bokkut kon ndigal waxtu jógee doo xool la gën a jub ci sama xel Serigne Saliou Mbacké daan wax ne ak teel bi am xel bu mat ndax waxtu ne ma ko fàttali ki jébbalu ki ki doon jullit ëllëg si noonu bi la xëy bi fa la tàmbalee àjjana da nga dégg mosoo ci teg sa wër sawara da nga ko gëm mosoo ci teg sa wër jéggi siraat da nga dégg mosoo ci sa wër bis penc da nga ko dégg mosoo ci sa wër ña faatu ñëpp kenn mu see gën si waat yàlla na xewal na kon lépp doo ko dégg ci ngëm moo tax lislaam lii xew ci jamono nit ñi di bëgg weddi xar baax ak di weddi karaam lépp pexe yi seetaan nit ki gëm la mu gisul ñu bëgg laa waxaat ne lépp looy gëm ci mu xel nga koy teg yaa ngi weddi ak soo ko téye ko mm-hmm. ñun nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax Sëriñ Tuubaa dugal nañu ci biir fi nga xam ne ku ca taal bi doo rëccati ko kon yàlla nañ cee saxal yàlla nañ cee kon Cheikh mi ngi nuyu bokk taal bi bi yëpp ak di ko wër ci jaare nag njabootu Alhaji Gora Seck mi nga xam ne moo fi nekkoon taawu liggéeyu Serigne Touba bii ba yàlla def mu wóor ci boromam fekk sëriñ Tuubaa waaye liggéey bi doxee na ci jom doxee ci posté tamantaan ci seen ndax néew na ma yow Ndakaaru te jigéewut fii ñëw séance ma daama diglu te posté rek li ñëpp xam ci moom jox léppam sëriñ Tuubaa fi mu doon àgg àgg àgg ci at xam ne dem nga ba xam ne mënatu ko foo ko gisee xam ne gis sëriñ Tuubaa rek ne ci moom kon nag lan doon si Tuubaa tey ji dara ci dëgg tam ndax àdduna amul solo am rek la ñëpp a koy fekk ñun ñëpp koy fekk ñëpp a koy waaye nag bu ñu koy li ñuy def si suñu dund ba mën a am yaakaar rek ndax suñu Tuubaa dimbalu yàlla ak suñu Tuubaa rek ñu ngi jaaleen njabootam di leen ñaanal suñu borom dëgëral leen te rafet ñoom te seenu xetal ngeen xam ne ku liggéey sëriñ Tuubaa joxe sa lépp wàcc yàlla boo liggéey daan la ko fay ci sëriñ Tuubaa daan la ko fay ci sëriñ Tuubaa nahnu awliyaakum fi l-hayaati dunya wa fi l-aaxirati wa lakum fiihaa maa tashtahi anfusukum wa lakum fiihaa maa tad'uun nuzulan min ghafuurin rahiim kon ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax ginnaaw loolu jàll nag ni ko sëriñ Mor Mbacke waxee bi nga xamee ne bàyyi ko na fi ñun ñëpp dañoo maase di diglu ci fi nekkal Serigne Touba di ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kàddu li ngeen ak tere ci yoonu murid moom rek moo ko am yoonu murid du poil bu ñuy defee moom mu fi nekkal Serigne Touba lu mu xalaat ci xelam ak ku yëg-yëgam wala mu jugu ko ba mu def ko lool rek mooy daaw solo moo tax. ba ma leen wooloo ñu ñëw fa suñ Moodu Mbàkke si ñu ngi toog bañ dikkee yi tàmbalee wax dama ne leen dama bañ ko njuumte di leen dal ndax représentant bokkut ak président daayira président daayira naka jekk bi fi njabootu Sëriñ Tuubaa gi di nekk bi daayira tàmbalee xew ci jamono Cheikh Mamadou Fadil xëy na sax jëkk na ko waaye ci li gën a yaatoo jamono Cheikh Mamadou Fadil ba na gën ku fi mas a nekkal Sëñ Tuubaa moo soo tànn njiitu dayra yaakaar naa ci Youssou Diouf laa ko njëkk a dégg bi fi Sëñ Aatu Aatu bàyyi ko Sëñ Muntaxa teg ko fa waaye dayra taalibe yi tànn seen biir keneen doo ñu jiital ko mu jiite dayra représentant xarit général de Mouride nag sëriñ bi ci boppam mooy tànn ko ko doy mu toogal ko fa yilif daayira ak taalibe yi ñu ko diglu ma wax ma wax leen ne leen ma ko sëñ Moodu yow mii kat du ko doo ñoom duñ ko tànn yow doo ko tànn man mii du ma ko tànn sëriñ bi ci boppam moo ko tànn ma dem fa leeral ko lépp diglu ko ci ba yàlla def mu joxe ba keroog ci biir ay bis mu ca laa woo sëñ Moodu Mbàkke ci biir ne ko ñëw fekk ma di kër sëñ bañ dikkee bi bind leetar bi signé ko jox ma ko ma ne kon moo tax ma fa moom bis moom fi jukkoor ñëw bi jàppal ko tey jii loolu nag kon la ci sëriñ bi jàpp mooy sëriñ Baye Laye Ndiaye bi doon wax léegi nga xam ne moo nekkoon ci ginnaaw alaaj Góor Seck moom dafay sëriñ bi teg mu wóotoo ko ci liggéeyu sëriñ bi ngeen xam ne nag ngeen xam ne nag représentant ak bépp cër bu nit yor ci yoon bi ak ku mën a doon ba ci mën bi buñ jàpp mukk ne takk liif takk liif waaye du tashrif responsabilité la waaye du daraja du du honneur tuddee du doon ko nañ xam ne aw sas la ngir liggéey Sëriñ Tuubaa kon nag moom nii nga xam ne rafet nañ ci moom jot ndax man sax li ma ko gis bëriwul yaakaar naa keroog laa ko njëkk gis waaye li ñëpp seere ci moom genn kanam la mooy am na ko seen am na yitte te ci liggéey Sëriñ Tuubaa la rek topp na ci ginnaaw alaaji góor ba nagari kon nag sëriñ bi tànn na ko mu ne ci seen kanam yenn taali bi nag ngeen àndal moom ci liggéey jàpp na ko tax na liggéey bi moom ko day jëw lañ di jiite waaye liggéey Sëriñ fii nag li mu ci seeral léegi moom rek mooy li ci am bokk na ci kër Sëriñ Tuubaa yi jiitu ndax ci jamono Cheikh Abdou Lahad kon nag war ngeen a gën a góorgóorlu woon baax góorgóor gi mooy Sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam loolu kon na ngeen fexe ba kër gi weesu fii ndax kër ne Cheikh Amadou Mountakha wàcc jamono Sëriñ Tuubaa bu bari wàcc na te Sëriñ Tuubaa ko digaloon ngir muy dundal kër gi foofa war naa weesu nii jàkk yi fi war a am ndax kër Sëriñ Tuubaa incha allah mu yooti kullaha masaajida kër Sëriñ Tuubaa bu ngeen koy tabax jàkkaa fa war a jiitu ndax Sëriñ Tuubaa fu mu mës a rëdd kër balaa nga foofu nekk jàkk dañuy kër fa loolu itam ko nañ ko na ngeen ko sóoraale Sëriñ Tuubaa fu mu mës a sanc kër tàmbalee ci Daaru Salaam fi mu jëkk a woo boppam ak Touba ak feneen fépp fu mu mës a rëdd bala ñoo defal néeg bi ñuy bi ñuy yellu jàkka ji dañuy defal te booba mbaarum xar la doon kon nañ xam ne loolu mooy la war a jiitu wa anna al-masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ngeen jàppale ko rawatina nag ñi nga xam ne seeni waajur yàgg nañ ci liggéey Sëñ Tuubaa njabootu. El Hadj Serigne Faye seen taxawaay ñëpp xam nañ ko bàyyam El Hadj Serigne Faye ñëpp xam nañ lim liggéeyee Serigne Touba fii seere ngeen ko de kon sëñ Ibrahima yaag sa bokk yëpp na topp ci ginnaaw te jàppale ko ci biir kër gi ba liggéey bi gën a dox jëm ci kanam ba foo ko seen baay bàyyiwoon suñ góor a bàyyi ko fa mu gën a weesu loola ndax mbirum Serigne Touba lu mujj rek daa war a gën a kawe la weesu loolu ci yéen ci sëñ bi la njabootu sëñ Mbàkke Jigéen ñoom itam noonu ñoom seen moo ko joxe waaye nag la ma waxoon sëñ Mbàkke sëñ Masamba Sall xanaa la na ko Mbàkke xanaa ñu doole doole naa ci de sëriñ Saliou Mbàkke sëñ Naar si na ko ndax la def ñu ko jox ci la la la lu bu réyee rek mu jàpp ne yéeyu ko ñoom ñëpp noonu lañ daal luñ ko joxe mu jàpp ne yéeyu ko mu ñu àndaale ànda ànda xar rëy rëy bi mu jubee sëñ bi sëñ bi yéemu lool mu ne ko moom de xanaa bàyyi bàyyi dara ci kër ga mu ne ko mbàkkee nee daa bëgg loolu laajte na lool waaye si si saa yu loolu lépp jënd mu ne mu ne bu ñu gën a gore rek may defe sens bi yéen sama lépp Sëriñ Tuubaa la ko kon ñoom ñi nga xam ne ñooy liggéey Sëriñ Tuubaa foofu la ne danaa leen ci leeral loo xam ne lu ma a bàyyi xel la te li am nay seere bu ngeen dem ci saa yu jaaxte ma ne ci biir këram loolu ko fa laaj daal leen ko wax lan campagne bi sëriñ bi daal tëdd si saa yu ci mujj yi lan daa dem ba màggat ba mat laa dem ba jeex ba ñoom ñu gis ne fii ëpp na waaye ñëwuñ ko wax ñu dajalaat ci wéttali dem jënd ci am lal ay fan sëñ bi door seet ne ne dañ ko sol mu laaj leen ko bañ ko ko laajee ba mu leen laajee ana fu mu jóge ñu leeral ko ko mooy nañ ko delloo ndax lii sëñ boo ko jënd ko àll sëñ Tuubaa kon na nga ñi nga xam ne sëñ Tuubaa ñoo jëmbi sëñ Tuubaa noonu lay ragale woon àll sëñ Tuubaa yi xam ne lépp jëfi sëñ Tuubaa kon asama kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp suñ bàyyi laa yow itam loo gis rek lislaam day amul nos sëriñ bi Cheikh Mawal Mountakha wax na ne Pikine ak Rufisque yëpp ci région Dakar la bokk sëriñ Bakary Faye mooy jëwriñu Dakar kon na ngeen xam ne yéen ñëpp itam na ngeen di sosewaat ci moom di yëgoo moom liggéey bi di ànd nekk leen. ndax lislaam ni ñu ko waxee léegi rek mbooloo fu ñu ànd sax faaw nit jiitu am ñu topp ci ginnaaw kon lépp loo xam ne ci région de Dakar rek nañu àndandoo nekk wenn say ngir liggéeyee Sëriñ Tuubaa bi gën a la ngeen di def fii sax ñoom war nañ leen ca jàppale. ñoom it la ñuy defoo ñeen ñeen di ko def di ko àndal moom. kon loolu itam ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko joxe. na ngeen fexe daal ba doon xëy dellusiwaat da ngeen di leen di di siyaare si barab mu gën a soxla bu baax te bu ci amee pëstéefu bu doogu Sëriñ Tuubaa def nañu def nañu lépp ndax ba ñu tàmbali jumaa Tuubaa ji kat dërëm ñëw foofu masaay bi ñu ko tàmbali dara ñëw foofu kon Sëriñ Tuubaa mbiram bu jeex na ko kon na ngeen góorgóorlu te xam ne Sëriñ Tuubaa moo ñaanoon suñu borom ne ko yaa rabbi ij'alnii muriidan maa fi husnika al-hasini wa chamdalnaa kon képp ko xam ne yaa ngi dox ci lu dajale mboolem taalibu Serigne Touba yi na nga xam ne yaa ngi bi ci biir ndéglu Serigne Touba